وعن وارث سرهما مولانا شيخ الإسلام سيدي الحاج إبراهيم يس ابن مولانا سيدي الحاج عبد الله التجاني الكولخي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر بعد مكي yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax di ziara ñëpp kenn ku nekk ci jëmm ak turam ah di ñëw rek ci darsu alxames di wax rek ne Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu rihla bi moo ngi ci tëjtal gi ndax xaatimatun ci xaatima bi la nekk bàyyi ne xaatima boobu nag asalullaha taala xusnaha maa ngi yaakaar ci yàlla maa ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala ak rafetam wa tatmimun li ma faata fi rihlati ak mottali gu muy mottali la faat nañu ca tukki mi min zikri masailin ci tuddu ay laaj su ilat yooyu laajeef na ma an ha ci moom fa ajabtu ma tontu yëpp wa ijazatun ak ay ijazat yu ma joxe te jox nañ ko it wa xayru zalika ak yudut yii cheikhul islam maulana haaji ibrahim léegi nag mu ne istidraku abiyatin qultuha fi faas mu ne dabaatal ay bayit yoo xam ne waxoon naa ko ci faas déglul maam alxaaji abdullahi baay baay ñas ba mu faas ba ñëw lan la wax dafa ne ana xalifatu tijaani saami wa innani jubtu lahu lmawaami alhamdulillahi ala wusuli li faasa daari cheikhina almamuli id zurtuhu niltu minhu luluma wa niltu minhu lfayda walfuhuma jërta firi nañ ñëw ci waxi doom ji مولانا شيخ الاسلام تك تانك با فبايم تيغون تانكام داخ بول فاتني باي بي بايم غيني ادنا 1922 1920 سكون تي لا مولانا شيخ ابراهيم نس رضي الله عنه مطلبي ارث اصولي سرعه دون تواني سما تياكوتيف موي دونو سما باي الحاج عبد الله تي غاو تي امو بن خارنت مولانا شيخ ابراهيم نه الحمد لله على وصولي لفاس دار شيخنا المأمولي الحمد لله maa ngi sant yàlla ala wusuli ci sumag egg gi li faas a ñeel faas fuy faas mu ne daari cheikhina mooy kërëg sunu sëriñ ga almamuli kada kuñ yaakaar ñun cheikh tijaani mooy cheikhu tijaan almutanaahi kada aji daytalu almutanaahi muuli ka nga xam ne mébét yëpp moom mooy xemukaay ba fa nga xam ne fa la ñuy xem ci mébét yi ki nga xam ne moom lañ yaakaar ci mbooleem soxla yeeg yi ni mel kooku mooy sayidina wa maulana abil abbas ahmad attijaani cheikhul islam ne kullul baraya mbooleem bindi fii maalahum déɗɗi ñeexal leen min suuli genn may dégg nga ñoom de genn nag may ñeexalut leen dégg nga barzaxu majdil awliyaa yi ndax moom mooy diggaléeb tedd ngaak waliyu yi al jiili ñu jamono ji fama siwal jiili déet benn jamono benn jiil yaani xarn jiil mooy maas gi fa kullu jiili bépp maas bépp jiil bépp yaani jamono ña ko jamono xoo dégg nga mu ne amut ci kenn ku ci ne yaani lim la bëgg wax booy Euh, Cheikh Tidiane barzaxu majdil awliyaa il jili mooy diggale nga wali nga xam ne tedd nañ ci jili bile jiil te amut benn jiil fu fama siwal jiil fu kullu jiil dégg nga léegi nag nga door di indi baati maalahum min suulin dégg nga maanaam boo foog nga taqdim affaire bi nga door di ko mën a dégg bu baax a baax maanaam Seydi Ahmada Tidiane kenn ci jiil boobu du jot càkkutéef du jot soxlaam lu dut ne ci loxol Seydi Ahmed Tidiane la ko jotee bàyyee wax Cheikh ibrahim mu ne kon nag fatruk baxal wanal ginnaaw dégg nga bul sax déglu yow maqaala di hewan waxi borom bànneexi bakkan koo xam ne yoo xam yëpp si bànneexi bakkan la ko teg wa xiili ak yaakaar naa ne nii la naa la moo xam mooy koo xam ne xiila xaala ci la ne mu ne kay ma tara ngir nga eggi ji ngir nga gis manahijal wusuli yooni eggi wi parce que falan tara doo gis min aarifin benn aarif koo xam ne tànq na ci kaasi maarifatu billahi naan mawsuulin ku da aji eggi illaa bi sirri cheikhina lu ne mbootam sunu sëriñ bii almaqbuli madamuñ nangul ci la ko jëlee mbootam sunu sëriñ muy Seydi Ahmad Tijaani mbootam mi mooy kan Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu waxoon na ca waa Kawlax ne an baadi ahliha nazatu lbarakata falam yaraw natijatan lilxaraka siwa xusuusin min xusuusin fahum wa ahbabuna wada lissirri fahimu am na fii ci waa Kawlax rocci nañ barke ci seeni yëngatu luñ góorgóorlu góorgóorlu duñ gis dara lu dut nag ñuñ jagleel tukkee ci ñuñ jagleel ndax ñooñu suñuy soppe lañ li waral loolu mooy dafa am mbóot muñ leen xammel muñ leen xamal mbóot moomu mooy siru cheikh na tijaani radiallahu an dégg nga bàyyi na man képp koo xam ne zaarahu ziara na ko moom cheikh tijaani yafus da nga gañe bi kulli sulin ci bépp soxla min kulli sirrin ci bépp mbóot nag amut mii amut maa bépp mbóot dégg nga wajadan ak tab maxsuulin gadaguñ jat moy moy am am rek mahsulin garagun joti mune wazurtuhu man nak ziyaara naa ko kawaalidi comme son baye denga Cheikh Ibrahim fa bayam tegon xalimba je fa la tek xalimbaam bi mi tëj ne wazurtuhu kawalidi ziyaare naa ko comme sama way jur alxaaji abdallah wa awlaata ay na nag dégg ko wa awlaata may na bokkam inna raja'na bi jami' jamii suuli ñun de delsi nañ ak mboolem aajo yo xamne ne rangoxoon nañ ko bañi dem walhamdulillahi sant ñeel na yàlla alkarim yi mada aji tedd al mawla ka nga xam ne moom mooy borom léegi nag lii ay ab yàlla yoo xam ne mawlaana cheikh al islam sayidi alhaaji ibrahim Niass daf koo wax dégg nga fële nga xam ne mooy faas waaye bi mu demee fële nga xam ne mooy tanja dafa wax ak cheikh na sayidi mawlaana ahmad su cheikh ahmad sukayri cheikh ahmad sukayri tontu ko léegi nag téere bi ni mu demee mooy tontu cheikh sukayri ji la njëkk a indi biñ ko indee ba pare door di wax li nga xam ne moom la Baay wax Cheikh Ahmad Sukayri radiyallahu taala anhu Baay dafa ne abiyaatun qaalaha lii xadimul xadarati muhammadiya Ahmad Sukayri lii de ay abiyaat la yoo xam ne ki nga xam ne mooy liggéeykatu péeyub muhammadiyatu bii nga xam ne mooy Cheikh Ahmad Sukayri wax na ko ngir tontu ma chamal sukeri lan la wax bay li mbollem koy talibi tidiane waron nako deg te ñu jema xam kan moy cheikh ahmad sukeri jorandi ta'ala an mi nga xamne mag ñi yep mom lañ Kem cheikh tidiane ne ken du kudut ku deutam ci batti cheikh ahmad sukari deggal cheikh ahmad limi wax maulana cheikh ibrahim pour yow boko degge ba pare yow da nga taxaw nga jakarlok bay ak fo mané ne yaangi jakarlok fotom da nga joxoon Cheikh Ibrahima Niass ne ko yow góor gii man understandu ma la yow yaay kan dëgg-dëgg man xamuma yow yaay kan te dayoo taxaw di seedeel bàyyi ne ko seet naa ba sonn waaye mënuma laa découvrir loolu mooy dayoo bëgg Cheikhul Islam al Aji Ibrahim ndax moom waxoon na lu mel noonu ci yonent yàlla Muhammad te danañ ci ñëw Cheikh man Sukayri lan la wax daf ko ne ko yaa daa'iri yow aji ziyaare ma yow nga ne da ngaa ñëw di ma ziyaare ah te wa maswaaka wa bi qalbika ana maswaaka la jëlal wa gi yóbbu ko ca maswaaka ne ko wa maswaaka ta sa saxuwaa yow kaana nekk na bi qalbi ci suma xol bi yow kana xamoo ci sama xol bi nga sax garab nga fi yaa ma tax di dund na siitu damay fatte min di ci suma loxo bi may lekkee in kuntu dem nekk naa an saaka di la fàtte yow fàtte la mooy fàtte loxo bi may jëfandikoo bi nga xam ne moom laay lekke kon xoolal ki doyedee doyedee doyedi ñàkk fulla ñàkk fayda ba dëkk ak cheikhul islam al aaj ibrahim ñas cat jàpp la ba ngay won gannaaw bàyyi itte hoohoo mu nekk ki nga xam ne moom moo lay jox direction bu jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ah nasiitu min yadi in kuntu an sàkk mu ne sarayta min ni déglul wax ji bu baax nga xam kiy wax wax ji nga xam yow fan nga taxawee ci wax ji yow sarayta min nii rayat nga ca rañaan nga jëm ci man waaw tukkee fi man masrar ruuxi min jasadi tukkee ya, ci sama jëmm Mana maanaam yow ni nga royaatee ci man ni nga mel ci man ci sama biir jëmm ji ni ruhu mel ci sama jëmm ji waaw kay jëmm jum nekut jëmm ja du dundati kon cheikh ahmad sukayrij ne mom bi cheikhul islam maulana ala ibrahim moy système bi kay dundal moo tax moo tax léegoo-léeg nga dégg zikarkat yi di wax naan ñun bu ñuy tukki yóbbante ba moo da bëgg Baay Ñas ñun suñuy ree la ñuy ree moo bëgg Baay Ñas ñun suñuy jooy la ñuy jooyit moo da bëgg Baay Ñas dégg nga kon Cheikh Mat Sukayric mu ngi dëggal moom mbëggeelam ci Mawlana Cheikh Ibrahima mu ne ko nag lii looloo ko may li sidqi xubbin ngir dëggug mbëggeel bihi ci péyub yàlla bi waaw bihi bii na nga ko delloo ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga wàcc ko ci péyub muhammad yetu wàcc jox ko péyub ahmad yetu dégg nga bu la neexee nga farqu bu neexee nga jamu mu ne mbëggeel goo xam ne nag mawlaaka sa kilifa gi muy sa borom xaabaaka moo la ko may mbëggeel goo xam parce que affaire bi ki ci ëpp xam-xam moo la ci ëpp degere bëgg te nu degere mbëggeel gi geuna foré nala na fa cër ba di lewé motax tax mbokk yi nañ bëgg bàyyi radiyallahu taala anhu buñ bëggé bàyyi nañ dox ci bàyyi ndax noo koy gën di ràññeexee di ko bëgg te noo koy gën di bëggee di gën a jëriñu radiallahu taala anhu li sidqi xubbin bihi mawlaka habak لا تحسبنك بل جرت مكو يو على ibrahima ñas ne qad daat dina sànk xutaaka sa jéegu yii wa qad faazat te gañe nga bi waslika ci eggi gii nga eggi lii ci man bil yum ci barke boo xam ne yum naaka sa barke la yow yow kii nga xam ne ay alaaji ibrahima ñes radiallahu taala anhu xoolal kii wax ak alaaji ibrahima ñes lii kum dawut sa yaram sa yaram du dawati lii kum jasbuhut dootuloo am jasbu lii kum bëgguloo hut maolaana cheikh ibrahima ñes loo dox dox doo bëggati baay lii kum jeexalut ci baay nga dox di xool ay junjam lii kum jeexalut ci baay ngay seeti ay bindam di jàngat ay bindam di jéem a xam kuy wan gannaaw lu dut bàyyi jublu Cheikh Ibrahima muy sa kaabatul qalbi la mu waxoon yonent bi yaa kaabata qalbi yaa kaabata qalbi maa ara wala ura wala uridu shay'an is ataltul miqawala déggal waxi Cheikh Ahmad Sukayrij ji rek laa taxsabannaka qad daa'at xutaaka وقد فازت بوصلك لي باليمن باليمن يمناك لا اله الا الله لا تحسبنك قد ضاعت خطاك وقد فازت بوصلك لي باليمن يمناك دجل مجيلو كينا قمني الدنيا يب سيدل نانكو اك اجي الدنيا يب سيدل نانكو اك قطبانيه addina yëpp seedeel nañ ko ne moo ngonko waliyu yi mooy xalifa cheikhu tidiane radiallahu anhu xoolal li muy wax ci cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu ñun taaliba bàyyi ñu nekk fi di sàggan rek ci bàyyi nekk fi di béel ci li ñu neex nekk fi di négliger ndaje yi maulana cheikh ibrahima ñas radiallahu taala anhu déggal kii di cheikh Ahmad Sukayrij allahu akbar yi jégalu مني شحمر سكيري لا تحسبنك قد ضاعت خطاك وقد فاضت بوصلك لي باليمن يمناك شحمر سكيري نانا الشحمر من يسنك والله يرعاك يلا دي مولاي سامو في حل تي دنگوكو واتي غو قمنا هب غوكو سي بغاس واتي ومرتحلين اك ايك غو قمنا اك اب غوكو سي بغاس اك ديك پار پورتوكي wanil ta ta am nga yow sirran mbuut moo xam ne bihi ci barkeet mboo moomu tatiibu la téye maxyaaka sa xar bile ku la gis bëgg la yow alaaji ibrahima ñas mbokk yi nañ bëgg bàyyi wanil ta sirran bihi tatiibu maxyaaka dégg nga ko sa dunduwaay yaani sa xar sa dunduwaay li nga jublu laa ci jublu mu ne ko wa sadru minka te yow sa dënn bile منشرح لن لير الله بنور الحق تي لير اك دغ غي تمو يالا بوكي بغنا ني باي خيل وخي شيخ احمد سكير جي تي دومي مام اس جانق جيك دومي مولانا الحاج عبد الله نس والصدر منك بنور الحق منشرح يو دي سدن بي يعني سا قلبي دنجكو ليرال تي لير اك يالا موتاخ باي بانيوت كين muniko hatta bada sirruhu basa sa xol bi mbuutam mi feñ ala muhayyaka ci sa kanam bi yow basa qar kanam bi sa leru qol gi feñ fa motax bo gi Cheikh ibrahim Niass radiyallahu anhu yàlla bindagut gut ko gën a niru yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam muniko tala'at fi hayyina yawdi de fenk nga ci sunu quartier yi muy tanja badran di weer woo xam ne ibtadarat leeral na la huu ñeexal tànja gi ñu dëkkee ñun yow yaa feeñ ñëw fii ñu dëkkee leeral ko naññi ba képp ku doon wër puso dana ko gis ana ku doon wër yàlla nag moom bàyyi leer ba leeral li nga xam ne dafa lëndëmoon dégg nga ko yaa ñu xëddoon yaa ñu xeddi kon bàyyi boo yéexoon affaire bi ñaaw talaata fi xayina badran lahu btadarat minna fi ñun talaa'iu bishrin ay fenkitey mbégte xaysu foofi xam ne yardaaka dana la gërëm loo yow laa yaa leeral dégg nga ay fenkite yoo xam ne fu fi leer rek bu bañ gis ko rek mbégte lay nekk ñaar ñi ko nag waqat talaqaytu man dajee naag recevoir naa man recevoir naa min ka tukkee fi yow yaani bintal fikri min ka nga xadam ko ne min ka tukkee fi yow bintal fikri doom ju jigéenu xelaat doom ju jigéenu xelaat doom ju jigéenu xelaat mooy lan Mawlana Cheikh Ibrahim yëkkati kàddum gu neex googu kàddum gu set gu sell googu nga xam ne kàddug yontu yàlla Muhammad la kàddug Seydi Ahmad Tijaani la wax la ko wax ji nga benn baat bi nga mën ci bind ay téere yoo xam ne mbaam ak gëlëm buñ ko enoo danañ goor ndax jigéen mooy jur moo tax bu Cheikh Ibrahima Cheikh Mat Sukari ne ko dajee naag ci yow doom ju jigéenu xelaat mooy jël naa ci yow xelaat boo xam ne dëgg-dëgg jur na ba maa ngi koy doxal man Cheikh Mat Sukari est-ce que kon mënee coo sikkandiku ne Cheikh Mat Sukari finition bi rafetal liggéeyam bàyyee ko ko touché waqad talaqaytu bintal fikri minka bima fihi ca lool nekk na ca redaka sa ngërmande te yow alaaji ibrahim wa kullul xayri mbooleem hiw waa faaka dikkal na ku bëgg hiw rek dana gor ci sa kon nag man ahmad su koy rij fa bi hajjika maa ngi lay ci sa haj gi nga jugee jaar ci man wax na bi ziyaarati lii maa ngi lay ci ziyaara gi nga ñëw ne dag maa ziyaara bal li xew man xamee naa de duhut na maa la tax a de lan moo la tax a jóg li tijani sayidi wa mawlaaya ahmad tijaani moom moo la tax a jóg pour nga ñëw ziyaara ji ko ziyaara si ko wa dum saxal taalu di kawe rek bi oliyaaka ci sa kawe gi yow alaaji ibrahima cheikh ahmad sukayri mooy wax de léegi nag maa ngi tàggatoog yow waaye wax mil salaami yóbbul ma sama nuyoo bi enu ila akhika yóbbul ma ko ci sa mbokk ma kan la mawlaana cheikh mouhamadul xalifa ndax moo àndoon ak maam alaaji abdoulaye 1911 dégg maam alaaji bàyyi koon nga xam ne mooy Maroc dem aji màkk mu ne ko wax salaami ila axika fa huwa axi ahmadu xalifa moomu kooku sama mbokk la wopp nii alxaqiqi sama doom la ci xaqiqa xoolal magi baay ñaata at la magee Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu di borom xam-xam bu kenn xamut xam-xamam fu mu toll di borom wilaaya goo xam ne kenn xamut wilaayaam fu mu toll Cheikh Ahmad Sukayri nee na kii doomam la مولانا الشيخ ابراهيم ميركي كوكو ديغل الشيخ احمد سكيري لي موخ سي موم غا خبل كون باي اه باي دال ميغي نون فهو اخي وابني الحقيقي الذي كوكو غا خمنه واخاك مبوكون لا يو بس بي دغ ولا زلتم اهل ود يين دي يالا بو نين دنج دي نون تشوفيل في كمال رضان سي مات ngir mande وفي مراقل العلا ak ci éeguwaayu kawe ya du duumuna sax rek marqaaka di sa éeguwaay yow ki nga xam ne yow ala yow yaay alaaji ibrahim ñas radiyallahu taala anhu cheikh ahmad sukayrij mo wax li bay waaye wax ji tontu la bay bim mu daf ne la wa haa hiya al abyaat allati qultu lahu fa ajaabaha bayit yi nga xam ne wax naa ko cheikh ahmad sukayrij mi ngi nii déglul baay moom baay ku nekk mën na solal mbubu mo xam mbubu mbubb or la mbubu jamaa bàyyi may kenn tiitalu ko parce que xam na li am fa yàlla bàyyi cërëb kenn dérangé wu ko cërëb ku mu xam rek dana la delloo sab cër déggal li muy wax Cheikh Ahmad Sukayri jo radiyallahu taala bàyyi dafa ne jan ci Cheikh Ahmad Sukayri ne ko maa lépp loo xam ne kuntu tamuluhu nekkoon naa doon ko mébét haadahu li la bu bushraaka mooy sa mbégte mi la mooy mbégte mii haadahu mi ngi nii bushraaka oonaa sa mbégte بين هذا كما جاكارلو خليفة قطب الكوني mooy xalifaab xutbub jamono ji ma waa ka mi nga xam ne mooy sab tappuwaay mooy sa dëkkuwaay muy Cheikh na Tidiane xoolal mi ngi saxal xalifaak xilaafaak Cheikh Ahmad Sukayrij waaye do xoolal li ko Cheikh Ahmad Sukayrij wax bàyyi na Cheikh Ahmad Sukayrij yaa bahjatal asri yow taarub jamono ji inni lastu an saaka man duma la fàtte islam anal ngir ne amuma fii bilaadillahi ci dëkk yàlla yi charwaaka ku mel ni yow فكيف أنسى نكلاي فاتي الذي كو قمن أشواقه تفعلم ملأت دفا فيس قلبي سما قلبي فقلبي سما قلبي دواما تشلو دبت تشلو صخ عند مغناك من جسد دينجر ديور ديور بل يام كي balaa nga may gis fii kuntu nekkoon naa ursilu ruuhi di yónni sama ruuxi kulla aawinatin bépp jamono haadaaka mu ngi nii tey yaa cheikh yow sëriñ bi jismi sama jëmm ji al yow ma tey waa faaka dikkal na la ànd ak ruuxu gi takat léegi nag Cheikh Ibrahim ñu ne ko ki ngay wax ni kan mu ne ki may wax sukayrijul xarm mooy sukayri sang bi sirrul xatmi mbuutam cheikhu tidiane maa ngi man kilay ki nga xam ne xadaat suufe lu na wàcc na lahu ñeel ko al maali mboolem sahibul maali yi mboolem bolom palto yu kawe yi fa yaalu mu kawe na kulla man xaaka képp koo xam ne rek macha allah nekk na ñeexal ko moom Cheikh Ahmad Sukayrij radiallahu taala anhu képp koo xam ne xam na ko képp koo xam ne découvrir na Cheikh Ahmad Sukayrij rek Cheikh Ahmad Sukayrij kawe na ñeexal la mu ne ko walastu naasiya man du ma fàtte de ihsaanin manante bihi ay rafet-rafet yoo xam ne def nga ko ñeexal ma walaa yamallu ta du lottu mukk lisaani suma làmmañ bi awdu dikraaka di dellu du tudd lool du fàtte ko la al ihsaanu la ujazihi bin nisyaan lakal hanaaw maa ngi lay ndokkel ndekkal ñeel na la bi ma awlaytahu ca la may nga ko ko araban ay may walil hanaaw waaye nag man tam ndokkel ñeel na ma biru yaa yi ci gis goog gis naa ko mu xayyaaka sa xar kanam bii yow Cheikh Ahmad Sukayri ndokkel naa la waaye maa nge ndokkel sama bopp man alaaji Ibrahima Ñas radiyallahu bi nag moom dafa dafa dafa dafa darsu bi moom du laal xol kese darsu bi dafay kobos bakkan bu yaru ba darsu bi dafay dafay kobos bakkan boo xam ne nafsu raadiya la mardiya nafsul kaamila la darsu bi dafay kobos xol boo xam ne xol bi am na mushahadatul kabir darsu bi dafay kobos ruuhu goo xam ne moom moo xilif xol bakkan di soldaaram yal na yàlla may ñu dégg yal na yàlla xeew ñu ci buum ak Cheikh Ibrahima Niass googu mu wotat ñu fu xam ne jëmee yal na yàlla boole ñoo bàyyi lépp lu nar a taxaw suñ kanam pour tere ñoo bëgg bàyyi pour tere ñoo liggéeyal bàyyi yal na xalaku ba mel ni cunkuur guñ dugal ci karaw ak kum mën a dox ak fu mën a dox moo xam nit la moo xam palaas la moo xam mbindeefam yàlla la mu ñu taree bëgg Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu yal na yàlla labal ko ci géej ak safara goo xam ne dafay lakk ci lu gaaw ndax ñun ñu mën a dem yal nañu yàlla wërsëgal bëgg baay ndax bëgg baay dëgg-dëgg wërsëg la fii la darsu bi di am ki dan la ñu yónnee darsu bi mooy seen mbokk Ahmad dam ñing Sénégambia lu ci wañé ko rek xam leen ne ci mata dem gi la waaye Cheikh ibrahim mi waxé ci la ma ñu jiitu ci nopi mo doon wax ñuy dégg ni in uridu illa al islah ma sata'tu ma tawfiqi illa billah sen mbokk Ahmad dam ñing la Sénégambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh